amee lu la tax war a jàpp da ngaa war a jàpp boo amee loola la war a tax a sangu da ngaa a sangu lu jàpp lu la tax a war a sangu boo mënut ñaar yooyu yëpp nag ngir ngant nga tiim taxaaratul xabas mooy nga nga nga set ci lépp loo xam ne sobe la yére yi ngay julee barab bi ngay jullee yaram sa yaram yi ci boppam lépp set ci sobe ko sëriñ bi waxee ci jawaru nafis ba mu leer nañ kon loolu mooy mooy li la war bala nga julli mooy nga laab jublu xibla suturaal sa awra ñaareel ba mooy li nga xam ne ci biir julli gi nga koy def wala bu julli gi tàmbulee ba ca njëkk mooy yéene innamal amal bin niyaat lépp lu ab julli di def rek yéene moo ko teqale ak aada yéene ja rek yéene julli farata ngir yàlla julli ajjuma ji dama fas yéene julli ajjuma ngir yàlla damaa fas yéene julli tusubaar ngir yàlla damaa fas yéene julli takusaan ngir yàlla waaw nga wax loo nga nga nga teewlu loola ci saxol xol wax nga ca làmmiñ amut solo la am solo mooy nga teewlu ci saxol ne lii ngay def ka julli gi julli sàngam laa fas yéene def ngir yàlla lool rek moo ci am solo boo ci noppee nga def kabaru armal kabaru armal mooy li lay dugal ci julli gi allahu akbar nga wax ko ci sa làmmiñ te taxaw wax ko sopp nañ ca nga yëkkati say loxo ba mu tolloog say mbagg wala ba say say nopp nga jàng fatiya ak aw saar wala ay aaya yoo xam ne moo ca war a tegu ba noppe nga rukoo rukoo rukoo bu baax ba ba dal yarka xata yatma inna itminaan da ngay rukoo jàpp ci sëñaari ñaari sa sa gannaaw jub nga bañ sëgg bañ sëggi siggi waaye nga sëgg rek sëgg boo xam ne bu buñ xam la jàpp ci sa ñaari wax subhaana rabbi al azim ñetti yoon wala benn yoon boo rukkoo nga siggi ci rukkoo bi ba taxaw ba taxaw sat dal ne euh, euh, euh, sami allahu liman hamida liman hamida loolu ñu bari li tax ñu di wax mooy dañ ciy juum dañuy su dañuy rukkoo bala ñoo siggiwaat ba taxaw ñu sujoot te loolu boo ko defee rek bàyyi nga farata ci julli ndax yëkkati ko gi ba taxaw day farata moom it boo ne sami allahu liman hamida ba noppi daal di nag sujoot ci sa ñaari bëti oom ak sa ñaari loxo ak sa jë ak sa bakkan lépp nekk ci kaw suuf si waaw moo foofa it nga fa teg mooy it naan tekk joo xam ne boo fa waxee subhaana rabbiyal aala ñetti yoon loolu day na tekk joojo tekk tekk jooju da cee bokk waaye ñu baree bari ci ñuy julli ñaari su julli loolu leen xaw a xamee sëgg siggi sëgg siggi sëgg rek lañuy def waaw soo soo soo sujjootee bu njëkk bi nga nga siggi toog toog toogaay bu bu dëgër wax wax rabbi xfir lii allahuma xfir lii warxam nii allahuma xfir lii warxam nii ñetti yoon loolu boo ko defee def nga benn rakka benn rakka boobu nag ni mel noonu la rakka yi ci des yépp di mel la cay wuute mooy fu ñu war a yaloo nga yaloo fa fu ñu war a biralee nga biralee fa rek loolu rek moo leen wutale fu ñu war a jàngee fatiya ak saar ak fu ñu war a jàngee fatiya képp loolu lépp ay détails la yoo xam ne mi nga ca barab yi ñu ko war a war a war a xamee noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamale woon waa ji nga xam ne daal di koon julli ci kanamam te na muy dara baaxu ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko demal julliwaat mu demaa dikk mu ne ko demal julliwaat mu demaat dikk mu ne ko demal julliwaat mu demaat dikk mu ne ko man lii laa man waa ji ne ko man lii laa man lii ñuy def laa man yonent bi sallallahu alayhi daal koy jàngal julli noonu ñu ko waxee ca euh, kabaru armal ba ba ca muj ga ne ko nii la ñuy loolu boo demee ca silaahu ahlil xawfi bi sëñ wàll xasida googu sëñ waa liggéey wesaru imaamul aw fii mu woy ko ak tasawudu sixaar leeral na ca julli gu baax nu muy mel wala julli gu wér nu muy mel loolu lépp leeral na ko ci bokk na ca lam ca leeral it mooy nag boo defee loolu lépp ba noppi nag li la war mooy nag nga xàmmee lii ngay def def ko ni nga ko war a defee ndax buñ la laajee lan moo ciy farata lan moo ciy sunna sujjóot farata la wala sunna la jàng al fatiha farata la wala sunna la rukkoo farata la wala sunna la taaye farata la wala sunna la yooyu yëpp da ko war a xàmmee ndax xàmmee gi du ne xàmmee rek lañ ci jublu waaye lañ ci jublu sa yàqu julli ak sa defarug julli da cee aju ndax am na ci loo xam ne boo ko bàyyee julli gi day yàqu am na ci loo ko bàyyee da koy dabaatal am na ci loo ko bàyyee boo ko bàyyee du la wàññi dara kon xàmmee yooyu dafa nekk lu am solo ci ci ci ab jullit waaw sëriñ bi dem na ba ci li muy nett li ci téere tasawut sixaar ak yeneen mu ne ku defut loolu xàmmeewoo loolu am na borom xam-xam yoo xam ne sa julli googee yàlla nanguwu ko du julli gu wér yàlla nanguwu ko waaw ndax nee na képp ku réeree diineem te laaju ko tooñ na boppam te daganul ci mukallafit muy jëf jenn jëf te xamut atteb yàlla ca loola qultu waqad xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bi gayri xukmi shar'i fiihi fa sa nasu dalilun qat'i nee na lii lu wóor la loo xam ne amul werante ku xam ku safarata te laajoo ko fa ko war a laaje ba xam ko nee na day tooñ nga sa bopp te nee na yàlla araamal noonu ci mukallaf man kaana jahilan bi fardihi walam yasal fa nafsahu abada wa zalam ku safara te laajoo ko rek nee na nga tooñ nga sa bopp alak nga sa bopp sartum ñaareel bi ci julli gi nag mooy teewlu gi alxushu xushu muy lu am solo ci julli ndax ñu bari ci nun mën na noo fexe ba rafetal julli gi ci kaw gi waaye nag teewlu ga nag day manqué sunu borom tabaraka wa taala tudd na ñaari julli ci alquran genn ga mu tagg ña koy def dig leen ajana genn ga mu mu mu mu mu ŋàññi ña koy def dig leen sawara te ñoom ñaan ñëpp ay jullikat lañ qad aflaha al muminuun alladina hum fi salatihim xaashiun ñay julli te teewlu seen ak julli ñooñu day yàlla tagg na leen dig leen ajana waaye euh, euh, fa waylul lil musallin alladina hum an salatihim saahuun ñay julli te duñ teewlu seen ak julli duñ ca teewlu fu ne ña nga fa lu ne ña nga ca ñooñu day sunu borom tabaraka taala nee na danaa leen dugal sawara seen julli googa sawara dong la leen di julal da ko yonent bi sallallahu alayhi moo wax loolu nee na kenn ku ne sa julli la nga ca am mooy lu toll ni la nga ca teewlu sa julli gi lu mu gudd gudd ak lu mu yàgg-yàgg li nga ci am yàlla di ko fay mooy lu toll ni li nga ci teewlu rek laysa lir rajuli min salatihi illa ma aqal laysa lir rajuli min salatihi illa ma qashi qasha kon teewlu am na solo lool boo demee ci jawru nafis Sëriñ Tuubaa leeral na ko fa lool waaw qad nassa fi taalifihi man alima bi anna li salaati nuuran azima ba ca mujj ga loolu lépp ay leeral la yoo xam ne daf cay leeral importance boo xam ne teewlu ci julli am na ko solo teewlu ci julli am na ko solo teewlu nag lu lu lu nuru lu yomb lu jafe la waaye mënees na ko mënees na ci dimbandikoo yu bari moom teewlu googu ndax lu teewlu moo tax julli jafe ñeenti rakka rek jafewut bis bu set def lu ko gën a jafe waaye day mel ne boo koy def day mel ni day am lu la loo koy diisal ndax dafa diis wa illa alal xaashiin ñiy teewlu rek ñoom la julli woyof ci ñoom waaye ñiy teewlu julli day ci ñoom lool def ko day ci ñoom lool naa ko def ba génn ci sax moo leen ci dugal kon teewlu googu moo tax julli jafe waaye nag li muy jafe-jafe nag eh, danañ wax ne am na benn waay boo xam ne da da da da def naa yonent bi sax lañ wax wala daal ci asar la bokk ci jeexit yi nga xam ne ci lañ moom la ñuy nettali ci la bokk daf ne ku mën a julli ba noppi te xalaatoo dara ci àdduna danaa la jox nangam tudd lu dana danaa la jox nangam tudd tudd lam lam la la muy joxe gars yi julli kenn ku nekk mënoo jàll ba am kenn ku ñëw koo xam ne dafa julli ba noppi ñu laaj ko yow lan nga xalaat mu ne man day góorgóorlu naa julli naa ba julli gi jeex xalaatuma dara dara dara loolu sama borom waaye bi ma demee bay jeexal laay xalaat waa ji lu mu ma nar a jox loolu lay doon lu mu ma a jox loolu rek laa xalaat xam kooku jàmbaar la waaye rek jafe gi jafe tax na kenn mënu ko dañ koy dimbali ko yàlla dimbandikoo ci sunu borom tabaraka wa taala mu dimbali la ci bokk na ca la cay dimbali nit nag moom euh, teewlu googu mooy ba ca njëkk mooy ngay jéem a dégg li ngay julle yi ngay wax ci biir julli gi mooy ay alquran wala ay zikkar ngay jéem a dégg dégglu yooyu jéem koo xam lu muy tekk ba sax xel dem ci lool ndax xel du jàpp ñaar soo ko doon dégg dégg dégglu rek di ko xam mën na laa fegal xalaat leneen wa ayatun wahidatun tudubbirat min fiiha tafuqu xadmatan minhu talat beneen ba ca des mooy dal nga dal say cër nga dalal ko bañ ñi barax barax it dalal say cër lool dax yoon bi sallallahu gis na ko doon julli di di di julli mel ni ganaar guy for di cappi cappi mel ganaar guy for mu ne kii day bu teewlu woon ak julleem ci xolam cëram yi dana dal ñàkk a teewlu moo ko tey mu dal beneen ba ca mooy la ciy dimbali mooy booy julli ngay xool fi ngay sujoot sab gis bu ko teg fenn fu dul fi nga nar a sujoot rek boo taxawee xoolal fi ngay sujoot boo rukkooyee xoolal fi ngay sujjóot boo sujjóotee xoolal fi ngay sujjóot boo defee loolu rek sunu borom tabaraka wa taala ci ndimbalam mën na laa dimbale taw feexal la nga daje ak kusóo boobu te ku daje moom sunu borom tabaraka wa taala dana nangu sa julli yan na yàlla dimbale ci ñu bokk ci way julli yi nga xam ne dañuy teewlu ci seen ak julli te fegal ñu julli goo xam ne doo teew lu ci sa julli ba doo la nga ca bëggoon ci ab yool yàlla sunu borom tabaraka wa taala du la ko may wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 الحمد لله الملك الديان الكريم المنان خالق الإنس والجان وغافر ذنب من استغفره ومسعب الخير في شعبان أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم أما بعد يا أيها الناس قد علمتم أن الموت قريب war rabbu raqib fama taswiifu wa qad madal umru wa antum fi tiihi lgaflati talcabuun kam tasmacuuna almawaahiqa wa antum canha gaafiluun wa aclamu anna shacbaana قد أظلكم بأيامه الكرام فأكرموه ولو بصوم ثلاثة أيام وتوبوا إلى الله وقدموا بين يديكم صالح الأعمال ولا تتبعوا خطوات اللعين الشيطان وأن استغفروا ربكم وتوبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وفي الحديث قال شعبان يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فما لي قال جعلت فيك قراءة القرآن الحمد لله الذي لا تدركه العيون ولا تمثله الظنون وتاهت في كيفية عظمته العارفون وتحير في أزليته المتفكرون ولا يقال أين كان ولا كيف كان ولا متى كان ولا أين يكون أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي شرف شرف به الأنبياء والمرسلون صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فبالتقوى تدخلون الجنان وأنهاكم عن المعاصي وبالمعاصي تعرضون في النيران فاز المخفون وسبق الزاهدين والعابدون إلى أعلى منزل ومكان أحسن فلهم الحسنى وزيادة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وفي الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اذكروا الله يذكركم ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaah qad qaamat salaatu allah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 حسبنا الله حسبنا الله أكبر الله أكبر الله Allah أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من لا يسمن ويعذبه الله العذاب الأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر maanaam